كيف ترقى رقياك الأنبياء يا سمان ما طاول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا والتربية والتعليم Jullie والتعليم nu de Valencia Tabarakallah. Ñew ci suñu temu tay di waxtaane diine islaam waaye ñuy waxtaane itam borom bi subhaanahu wa taala mbokk yi xam nga ne wax naa la ne inna rabbakum alladi xalaq seen borom mooy ki nga xam ni mu bind mu bind lépp kenn fekku ko ci moo la bind moo bind am moo la lépp kenn teg ko ci ku jox ko cëram ba mu mat jaamu nangul ko parce que xalaqal insaana min mu bind nit ko war a bindee defar ko ba mu nekk ahsanu taqwim suma qadram kartanal la wa razaqa mu wërsëgal la فقوله الفصل اللي موخ لب لير وكم الحق أتم دقل قل وإليه الصحاب والمنطلق حملني كي موم لن يبوي جم موي موي مجواي بي تكونك لو في من الدف إنب كي موم غي تير فإما الصواب وإما الإقام بين نغا دمو فايلا لباخ ولا بين نغا دمو دمو te it kenn ku dem teew ci kanamam fa yawma isin laa yasalu an say an an zanbihi insun wala jaan soo fa demee yóbbuwaale fa sa bakar keroog bàkkaar ba duñ ko fay bépp jinne duñ ko fay nit duñ ko laaj nit duñ ko laaj jinne yow lañ koy laaj bokk julit yi faqaddu ibadallahi absaarakum anil haram bokk julit yi kon nañu gëmm sunu bët yi ci xool lenn nañu gëmm suñu bët yi nañu gëmm suñu bët yi ci xool lu araam waaye nañu xool suñu bët yi ci xool dëgg xàmmee dëgg te moytu propagande moytu polémique yi ci réew mi mbokk yi wax naa fi bëgg ma ne lu mel ni émission boobu yi am teex teexam ñu naan ko quartier général suñu moytuwul émission la boo xam ne mën na yàq lu bëri ci réew mi xaw ma mën na fi defaram déet waaye mën na fi yàq mu ngi yàq émission boo xam ne dañuy invité nit mu fob sëriñam teg ko place yàlla wala mu teg ko fu romb Seydina dem ba nit ci télé ci ci quartier Sénégal di xas kilifa jàmbur di yëkkati kilifaam loolu ba kañ waxoon naa fi ni nañu moytu jël suñu kilifa yi def leen ndax ki xamul soo yëkkati sëriñ bi day dem ba yàgg mu yaakaar ne moom sëriñ bi la war a jaamu sëriñ bi moo yàlla sëriñ bi moo am dem na ba am na ñoo xam ne bu ñuy ñaan dootu ñu ñaan yàlla dañu naan sëriñ jiw maa ngi lay ñaan nangam te te nit te borom xam-xam rek leen ku leen lu leen réeral soo ko sëriñ bi def parce que jàpp nañ ni loolu sëriñ bee ko man moo ko am fekk déedéet nañu moytu xam ñi ñuy déglu ak xam ñi dul déglu nañu waxtaane njàngale mag ñi te bàyyi mag ñi ñuy waxtaane nañu waxtaane seenum njàngale man day wax naa ni képp ku gis benn xasaayit bu maam Boroom Tuubaa bind di ci jàngale boppam dama ko woon man gisuma ko képp ku gis benn xasaayit bu maam maam Seydi Aj bind ci jàngale boppam na ma ko wax man gisuma ko képp ku bu Baay Ñas bind jàngale boppam na ma ko wax man gisuma ko ñun di jàngal lu ñu seen bopp dañu jàngal yàlla jàngal ñu yonent bi dañu jàngal yàlla jàngal ñu yonent bi mbokk yi nañu yew mbokk yi nañu moytu nañu moytu nañu moytu fop suñu kilifa teg ko ci place boo xam ne yaakaar nañ ni kudul moom moo la gën yàlla rek a xam ki gën te kudul ku ku ne moo gën Seydina Muhammad moo la gën yow boo fi demee dem a dem ba yaakaaru maam Seydi yaakaaru kul maam Seydi Aj mali nga yaakaar ni tey kuy dox ci kaw suuf Maodo la gën Maodo mi nga yaakaar ni moo gën nee na min kulli fin hamidin حاس أفعل تفضيل رجاء البرايا يوم مستحم من رسول الله képp ku ñu wax ni yaa gën kooku dañ koy nax même bu ci yëkkatee mbagam gis nekkul dara dina ñëpp kuy dox ci kaw suuf Seydina Muhammad lépp lu mu am yaa ko ko gën la te yaa ko ko may yow daal uniiloo ma uniiloo bil mu biini lépp lu waay am ci yow la ko jëlee su dee da ngaa dema dema dema dema dem ba yaakaar ni képp kuy dox ci kaw suuf bépp doomu aadama ku jigéen di sukk di sëñ Tuubaa la gën sëñ Tuubaa moom nga yaakaar ni moom moo gën ñëpp moom nee na ne lakal fadlu yaa muxtaar yaa sayyidal wara عليك السلام الله يا من معص الله فلموفى لكل من جملة الأغيار مرتبة لكنما أحمد المختار مختار ننكب كنيوان دلا تان نان لا أم مرتبة واو والي بني دي من نام مرتبة من نام أي كرام واي من جول ماك سين سين كي بوشيرا كون مو خمنا ني مم سين بوشير جول ماك كون كنين كنك كون نينين نينك ماني نيو باي لي ني واخ nañu won nañu jàngal nit ñi yàlla jàngal nit ñi rasulullah mbokk jullit yi kon nañ gëmm suñu bët te xeppi xool li ñu war a xool wata nation asmaakum raxas leen seeni nopp anil fasit yi caaxaan yii ñuy wax anil fasitil kalaam ci wax ju bon yi ñuy wax ci télé yi nañu faxas suñu nopp ci wax yu bon yi ñuy wax ci rojo yi waaw wa taxaru alsinatukum te nu wax lu ñu war a wax suñu làmmañ te mooy ñu wax nit ci yàlla fa innaha malu nasrillah gis nga xol yi bu ñu bu ñu ko raxasee bu ñu raxasee làmmañ yi ba mu set ñu dindi ci fen dindi ci jëw dindi ci rambaaj dindi ci wax ju ñaaw dindi ci xastente bi wa safu qulubakum ñu setal suñu xol fa innaha mahallu nasrillahi mooy place ba yàlla di xool kan sil jalaali wal ikram foog koo koy ponkal mi kookooy ki ñu war a xool kookooy ki ñu war a jàngale boobu nga xëy ne mooy ñëw fekk xol bi set wécc mu placé foofu ñëpp boole ca ndeysaan nga xam ni dootoo xàmmee ku ñuul ak ku weex dootoo xàmmee ponkal me xele bi mbindeefu yàlla boo gis doo xàmmee sax ayawaan beeg doomu aadama bi mbindeefu yàlla boo gis yàlla rek ngay gis ci moom loolu la yàlla soxla qabla an yaarfa almujrimin pour nga xàmmee kàccoor bi sax bala nga koy xàmme day jëf rek nga door a gis bi siimaahum nee na ca seen mandargay fa yoqos bi nawaasi wal aqdam ñooñu nga xam ne bu yowmal qiyaamee yàlla daf leen di jàpp di leen xëcc di leen tiri jëme leen ci lan musiba yu mag yooyu mu leen di préparé ndax ñoom ñoo doon réeral nit ñi da doon sànq nit ñi ci àdduna bokk julit yi dañu delloo waat suñu bopp ci yàlla nanu bàyyi sëriñ si ñu def ay xërëm nañu bàyyi suñu mag ñi nga xam ne dañ leen di wone di leen def ay xërëm mag ñi yàlla lañ ñu jàngal yonent yi lañ ñu jàngal nañu fopp mag ñi teg leen seen teg waaye jàngale seenum jàngale te bañ jàngale mag ñi fopp nit ci jàng di ko jàngal nit ki ba jàngalatoo nit ki yàlla ba nit ki réere yàlla yaakaar ni mag mi mooy yàlla yaakaar ni mag mi mooy yonent bi dem na am na fi sëriñ ñoo xam taalibe yoo xam ne tey ñi seen ñàkk jàng dem nañ ba yaakaar ni maam Seydina Aj Malik moo gën a foor Mouhamed wala ñu yaakaar maam borom moo gën a foor Mouhamed wala ñu yaakaar Baay mooy yàlla lu leen dañ koy def nañu moytu nañu moytu fenkat yi nekk ci télé yi nañu moytu fenkat yi nekk ci rajo yi nañu moytu taltal ji ma quartier général la xaw ma nañu moytu émission boobu yàlla nag nee na wali man xaafa maqaama rabbihi jannataan nee na képp koo xam ne fépp koo toog bàyyi nga xel présence yàlla bàyyi nga xel ceewaayu sunu boroom xam nga ni yàllaa ngi toog ndax yàlla nee na ñaar mën ñu nekk fu ma leen ñetteelu ñett mën ñu nekk fu ma leen ñeenteelu mais mennum yow rek tax te waxu maakum ay dama kuntum fu ngeen nekk yàllaa ngi ànd ak yéen koo xam ne musul tàggalikoogu yow wax la ne la wax na la ne la bu ëllëgee di nga xam ne musuma gi yow kooku kay wax dëgg yàlla kon fa ama man xaafa maqaama rabbihi wa naa nafsa anil hawa fa inna al jannata hiya al mawa kon mbokk yooyu nañu delloowaat suñu bopp suñu borom subhanahu wa taala ngeen baal ñaar ñu ngi nuyu ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa